mu ne kàddu yi nga xam ne moo jib ci émigration can clandestine. ñun de waa CATB. mu ne ñun waa CATB. ak waa Proxim. ak waa Proxim. commencé nañ ko xeex yàgg. mu ne commencé nañ ko xeex bu yàgg. ci lan. ci lan. mu ne ñun amuñu budget. suñu ay poche rek mu ne seen ay doole seen poche rek la ñu am. boobu ba léegi. mu ne boobaak léegi. lu ñu am. lu ñu am. ñu dimbalee ko xale yi. ñu ngi koy dimbalee xale yi. li si nekk mooy. mu ne li nga xam ne moo ci nekk mooy. dañu yàgg di dimbali xale yi. dañu yàgg di dimbali xale yi. waaye duñ gis njeexital ba. wante nag njeexital ba duñ ko gis. ndax li ñu bëggoon. ndax li ñu bëggoon. xale yi xam ni ñuy xale yi xam naka la ñuy réussir. buñ leen joxee entreprise. buñ leen joxee nag entreprise. moo tax ñu décidé ne. moo tax nag léegi ñu décidé nag. képp ku ñu jox financement. képp koo xam ne jox nañ la financement. il faut ñu encadré la. nga nangu nag ñu encadré la. ndax loolu mooy samp kër. ndax loolu nag mooy samp kër. waa le jeunes pêcheurs. mu ne jeunes nappkat yi. ñëwoon nañ si man. ñëwoon nañ ci moom. am projet. am projet. projet bi nag première phase bi. mu ne projet bi première phase bi. si sabab li mu fàttaliku. li mu fàttaliku. mooy 5 millions la woon. mooy juróomi million la. man nag jox naa leen juróomi million tey. mu ne tey jox na leen juróomi million tey. pour ngeen commencé seen projet. ñu wëy nag. mu wëy ak yéen. di leen jàppale. di leen jàppale. te ngeen nangu. te ngeen nangu. suñu ay conseil ñu leen di conseiller. nangu ngeen nangu. ñu encadré financement ñu encadré nag financement bi ñu leen di financé. noonu la ñu bëgg a doxalee biir Medina. te noonu nag la ñu bëgg a doxalee biir Medina. dinañ jàppale ñëpp. dinañ jàppale incha allahu rabi ñëpp. suñu kattan ak suñu doole. suñu kattan ak suñu doole. li nga xam ne mënuñu ko. li nga xam ne mënuñu ko. dinañu dem si état bi. nag ci état bi. ñu ñaan ñu mottali ko ñu mottali ko ndax kat lépp ndax kat mënuñu lépp waaye première phase bi moom wante première phase bi dinañ jël cinq dinañ jël juróomi millions yi teg ko seen loxo teg ko seen loxo ak encadrement ak encadrement faw ñu nag ñu nangu ko parce boobu mooy wëy ndax politique boobu mooy wëy fii koo fi jox cinq koo fi jox juróomi million bàyyi ko mu dem bàyyi ko mu dem. ginnaaw suba. ginnaaw suba. sa ay rongoñ ngay dese. sa ay rongoñ ngay dese. te loolu ñu koo def. kontaan naa trop. kon daal xolam sedd na tey. mu ngi leen di gërëm. di leen sant. wasalaam jërë ngeen jëf waa Soumbédioune